sallallahu wa sallama alayhi wa ala wa asxaabihi ajmaina amma baadu fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoofi fi teew te amal jataay bi di ñaan sunu borom tabaraka wa taala lépp mu def ko njariñ ak tuyaaba rawatina ci weer wi ñu nekk nga xam ne weeru jaamu yàlla wu fees dell la lu waay man ci lu baax rek war caa góorgóorlu ndaxte lee sunu borom tabaraka wa taala mën noo nangul te jéggal nu te jaamu yàlla yi def mu nangu dëgg la waxtaan wi euh, duma wax sax ne ab saag la boo xam ne ab séminaire la waaye ay seminaire la kon waxtaan wu yaatu la waroon a doon ndax dafa tënku ci ñetti bànqaas yoo xam ne am na ci yoo xam ne sax jotoon nañ koo def fii ci Sénégal waaye yi ci ëpp jot nañ koo defit ci bitim réew ñetti séminaire la yoo xam ne yëpp yuñ préparé la bi ci jëkk day aju ci liñ war a waxtaane tey muy mahaaraat xal al mushkilaat zawjiya mooy lim tudd léegi jafe-jafe yi am ci diggante way dencante yi lan mooy sabab yi ak lan mooy saafara yi amoon na beneen seminaire boo xam ne dafa jëm ci i'daad al bayt said kër gu tegu ci yoon nan lay mel njaboot ga fa nekk ak jëmmi kër gi ci boppam sax nan la war a bindoo am beneen séminaire boo xam ne mabadi al iqtisaad al manzili principe yi nga xam ne moo lal lu jëm ci wàllu économie kër lu ca aju ba yàq du am looloo tam lu ñuy tàggate la bokk la ci li ñuy tàggate ci la bokk ñetti séminaire yooyu benn bu ci nekk dafa war a jël ñeenti waxtu ngir mu mat moo tax ñaare buñ koy def euh, dañ koy def ci ñaari fan lii nag bi ma xoolee waxtu wi nga xam ne moom lañ ñu jagleel ci laa xamee ne ab seminaire mënu fee nekk waaye danañ jéem a résumé li nga xam ne moo aju ci problème yi tax yi am ci kër yi lan moo ko indi ak nan lañ koy saafaraa objectif yi nga xam ne moo tax waxtaan wi jóg dem na ba ci juróom ba ci jëkk mooy fexe ba wàññi juuyoo gi xew ci kër yi ak xuloo bi ak sax dem ba àgg ci dakkal ab sëy ci wàllu passé pan la ñuy jaar ba loola wàññiku ñaareelu jubluwaay ba muy objectif ba mooy ki participer ci waxtaan wi ba mu jeex tam dégg li ñuy wax jàpp nañ ne dana am ay pexe lool ci problème yi koy gaar mu man koo saafara man koo saafaral boppam maanaam bu dee ñaari way dencante yi kenn ku ci nekk danga am yóbbal boo xam ne su problème yooyu yéen ñaar ñëpp di ngeen ko daal di mën a saafara ñetteel ba mooy ñi nga xam ne dañoo toll ci sëy te duggaguñ ci muy góor walla muy jigéen ñu mën a waajal seen bopp ci anam goo xam ne danañ fexe ba sëy ba ñuy dugg ma ne su wax ne doo am ay problème waaye danañ mën a fexe ba mu néew kon loolu ci jubluwaay la bokk ñeenteel ba mooy xeex phénomène ragal sëy ndax loolu day dal góor léeg-léeg lenn ci góor ñi ragal a dugg ci sëy ndax la ca tegu ci ay responsabilité ak ay yëf yëfaan ku jigéen kat léeg-léeg mu dal ko daa mel ne coow li xaw bari de ku jigéen kat léeg-léeg mu dal ko waaye ñaare li koy dalee day fekk am benn déception bu ko dal ci wàllu sëy mu daal di ragale du gàtti nag ci sëy kon fexe ba ragal googi fexe ba mu wàññiku muy ci góor ku góor ci wala ci ku jigéen ci fexe itam juróomeel ba ki nga xam ne dafa participer ci programme bi ba mu jeex war na mën a am ab yóbbal boo xam ne waxuma sax problème boppam waaye war naa mën a dimbali keneen ci ay problème am ba dimbali ko ci musaafara kon juróomi objectif yi moom lañ am ñaare nag daanañ jéem a xool ba xam ñi nuy waxtaanal ndax ñu ci ëpp ay boroomi kër lañ maanaam ñu nekk ci sëy lañ wala ay célibataire lay waxtaanal kon ñi nga xam ne dañoo nekk ci kër ñu yëkkati seen loxo ma xool ba xam boroom kër yi waaw masha allah ak góor ñeeg yëpp rek waaw baax na baax na baax na baax na ñu xool ji ci des ba xam nañ toll macha allah tayyib baax na baax na waaw tabarakallah am na solo gaa ñi ma war a yëkkati wala bokk leen fii wala fii kon léegi xam naa ne waxtaan wi ñëpp a ci am cër ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër ak ñi nga xam ne dañoo bëgg a dugg ci biir kër kon bi ngeen dégloo objectif yi xam ngeen ne am na ci jubluwaay yoo xam ne li ko tax a jóg mooy ñu duggagul ci biir kër far la ñu mën a jaar ba préparer seen bopp ba problème yi duñ ci dugg Eh, waxtaan wu mel nii nag dafa am ay particularité yum am maanaam ay xasaais bi ci jëkk mooy waxtaan wu leer la war a doon woo xam dañ koy waxtaane nekkul rek koo xam ne day ñëw tiim aw këyit jàngat ko mu jeex daal di lem aw këyitam jóg dem waaye li ñuy waxtaane la tam doon loo xam ne lu leer la waaye it ñi xam ne nekkul waxtaan woo xam ne daa jëm ci àttey fiq waaye aw nekkiin ci la jëm maanaam ci wàllu sociologie la gën a jëm ci wàllu fiq nit ñi li ñuy dundee ci biir kër yi ak askan yi ba ca tegu ci particularité yooyu mooy ñu xam ne waxtaanu yar la itam yar maanaam éducation ndax doomu aadama du weesu euh, ñu di ko yar waxtaan la woo xam ne it li ko tax a jóg mooy ndaw ñi buñ ne ndaw ñi mooy ñi nga xam ne xas nañ majeur am fukki at ak juróom jëm kaw ba àgg ci ñi nga xam ne àgg nañ ci soixante-dix ans waaye ko xas weesu foofu nag waxtaan yu mel nii am na yeneen yoo mën a fekkee di ca jariñu wudul wu mel nii euh, waxtaan wet fi ñu koy jëlee maanaam source bi nga xam ne fi la ñuy jëlee éléments yi ñuy waxtaane nekkul loo xam ne dañ ko jëggaane fen waaye ci biir li ñuy dund noonu ci lay jóge euh, waxtaan wet bokk na ci particularité moo di occasion la ci nit ki mu xoolaat boppam su wéetee nga ganaayam mu xool moom mii lan moo manqué ci moom ngir mu mën koo defaraat bokk na ca ba tey it mooy yiñ fi waxtaane moo xam kenn ci yéen moo koy wax wala man maa koy wax wala kenn ci eh, ñii toog sama wet waaye ñi xam ne nekkul waxtaan woo xam ne jëm ko tax a jóg maanaam du caa lii may wax nii diw sàngam moo ko moom waaye ñépp ci mën a bokk maanaam daal nekkul lu ñu personnalisé moo tax kay jël parole di wax sax li gën mooy mu généralisé waaye mu bañ a wax loo xam ne problème personnel bu muy dund la moom wala bu fekkee bu muy dund la mu bañ ne man mii sama kër nangam ak nangam sama borom kër def nangam wala sama soxna day def nangam déedéet bëggewuñ ko noona waaye nangam am na ci société bi noonu lañ ko bëgg a déggee yooyu mooy yoo xam ne mënees na koo tàmbalee kenn ku nekk xam na ne euh, sëy day am ay problème loolu moom yow mi ci dugg xam nga ko yow mi ci duggagut it sooy boo nga xam ko tey maanaam sëy ak kër mënta ñàkk ay jafe-jafe jafe-jafe ci biir kër nag du gàcce maanaam du caagi ni ñu fi nekk dañoo feebal moo tax seen kër am jafe-jafe déedéet waaye liy gàcce mooy mu am te mënuñu koo saafara yonentu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon ne kër mën naa mucc ci jafe-jafe kon këram dana ci mujj ay jigéenam jaar nañoo moom foo xam ne gàddaay na leen weer wu mat sëkk weeru yàlla wu mat sëkk yonent yàlla bi gàddaay leen faje leen loola kon nga xam ne jafe-jafe mënta am ci kër ak yu baree bari yoo xam ne doon na xew ci biir kër ga yoo xam ne ñiy jàng dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak i soxnaam xam nañ ko waaye taxut loola nekk gàcce waaye nag leen lu ci ne saafara na ko ci anam goo xam ne am njàng la problème nag buy am benn dafa jóge ci ku góor ki walla mu jóge ci ku jigéen ki walla mu jóge ci keneen koo xam ne du ñaari way dencante waaye keneen moo leen ko indil moo tax noonu lañ ko partagé nu tàmbalee ci ku góor gi problème yi xew ci kër gi te xam ne góor ñi ñoo ko indi yooyu daal bëgg naa lu mat ñeent moo xam ay góor lañ wala jigéen nag parce que góor ñeent xam nañ problème yi xam ne ñoo koy indi ñoom waaye soxla naa ñeent yoo xam ne kenn ku ne dana jël parole su fekkee microphone bi day déplacé euh, ku jël parole nga tuddal ma benn problème rek ci yi nga xam ne góor ñi ñoo koy indi ci kër yi kuy jëkk a jël waa ah, joxal kon góor yi jëkk jël kon macha allah loolu am na solo jox ko ku ku mën a déplacer ci lu gaaw waxal rek ci kaw ñu dégg bu fekkee microphone bi pareegul waxal waxal waxal mu ne am na problème yi boo xam ne góor jee ko indi muy gaaw a mer tayib keneen ak beneen problème am na keneen ku nekk na le waaw bismillah microphone bi baaxoon na ci de bisimilah soxna si ñu ngi lay déglu ñàkk yërmande ak ban bisimilah ah ñeme kilifteef wala ragal ko ah tayib waaw mën a commandé mën a commandé d'accord soxna si voilà yor lu ëpp benn soxna te yemale woo leen loolu moom problème la loolu problème euh, am naa ñeenti ñi ma soxla woon waxtu wi dafa bari waaye lu mel ni dañ ci war a taxaw lu yàgg problème yi jóge ci góor ñi benn ñàkk a jox yitte sa soxna kooku problème la maanaam moo xam nag lan mooy sabab si waaye ñàkk koo jox itte dana indi jafe-jafe ci kër ñaar loxo bu jotul gannaawam niñ koy waxee ñàkk dana indi jafe-jafe ci kër xam nga boo gisee ñu ne jëkkër la mooy góor moom mooy responsable ci yor kër gi ak waa kër gi ñetteel ñàkk expérience ñàkk expérience ci diriger kër niñ koy jiitee yore kër nekkut loo xam ne lu simple la dem na ba boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax Ibnu Sina ci téere bu ñuy wax as-siyaasa téere bi politique la ko tuddee Ibnu Sina ku yàgg-yàgg la nee na képp koo xam ne mën ngaa boole ñaari jigéen ci kër yor leen mu régle lépp tegu ci aw yoon nee na mën ngaa yore am réew maanaam mën nañ laa jox am réew nga yore ko kon nekkul loo xam ne lu tuuti la kon ñàkk expérience googu dana indi nag ay jafe-jafe ci biir kër léeg-léeg bokk na ci it problème yi ci biir ti kër ga nga indi ko ci biir kër gi dana di dal góor xëy liggéey am fay jafe-jafe ci liggéeyam wala lu mel noonu mel ne waa kër gi ñoo ko ko teg mu ñëw yan leen ko loolu danay am léeg-léeg ñàkk jot dafay dafay dafay dal ku góor gi mën naa doon ci biir daawa bi sax xam day daawa ba talatul sax par këram mën naa doon ay gëstukat yoo xam dañoo nekk ci gëstu di jàng nekk ci téere yi ba talatu leen seen waa kër man xam naa koo xam ne du fii nag mbokkum naar la soxnaam moo lakk bibliothèque am parce que nee na benn benn droit ci borom këram dundam gépp guddi ak bëccëg mi ngi ci téere yi mu lakk bibliothèque bi te fekk euh, catastrophe bu mag a mag a mag la xew-xew boobu ndax kooku ab étudiant la boo xam da doon def euh, ci doctorat la toll woon bi mu ko lakkee lakkaale na la mu gëstu woon lépp te fekk li ko dese woon bareetul pour wane ni rek loolu dana jur dana jur jafe-jafe euh, juróom-benneel ba ci problème yooyu mooy takk ay soxna te fekk amagoo kàttan gi mënagoo ko mënoo ko ci sa am-am mënoo ko ci sa kàttan ci nu ñuy diriger kër ak nu ñu koy doxale waaye sa xalaatin ak sa mental sax àggagut ci ni ñuy jiitee ay doom aadama yoo xam ne fénqoo day gën a bari ci seen diggante kon borom bi tabaraka wa moom moo daganal nit ki takk lu ëpp benn soxna waaye nag nu leen di yore ak lu mu leen di yore loolu yi mooy xalaat ba war a jiitu bokk na ca te mooy juróom-ñaareel bi li indi problème yi mooy nay ñàkk a joxe nay nag buñ ko waxee firiwul ne lépp lu soxna si laaj rek dañ ko ko war a jox soo ko ko joxul daa da ngaa nay déedéet borom bi tabaraka wa taala daf ne wala tajal yadaka maxlulatan ila unuqik wala tabsutha kull al bast nee na sa loxo bul ko ngëb rek waaye bul tàllal itam ne lu waay soxla rek jëlal nooy def mooy nekk ci diggante bi walladina ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kaana bayna dalika qawaama ñi nga xam ne bu ñuy dépensé nee na du duñ xor-xoral muy néew lool waaye duñ xëpp itam mu jeex benn yoon waaye dañ koy def mu nekk ci diggante bi soxla yi nekk ay farata ñu di ko faj bokk na ci problème yooyu mooy kilifteefam li soxna si doon junj léegi mu fonk ko lool te fonkul li jàkkaarloo ak kilifteef googu muy warugar yi ñu yàlla teg ci loosam nga xam ne ni mu nekk kilifa xewaama bi ko yàlla jox rijaalu qawwaamuuna ala nisaa xewaama boobu ko yàlla jox bàyyiwul xel moom it li ko war ci digganteem ak ñi nga xam ne ñoom la yëlif loolu day indi problème ñàkk a toog itam ci li indi problème ci la bokk ñàkk toog ay tukki yu yàgg yàgg yu jéggi dayoo dana indi jafe-jafe ci kër soxla yu bari ak ay yitte yu bari yoo xam ne àgg na ci xatal waxtu nit ki ba ay aajoom gën naa bari te amut loo xam ne mooy faj aajo yooyu loolu day indi ak naqari deret ci ku góor ki naqari deret gi mbokk mi doon wax léegi doonte ku góor ak ku jigéen ñëpp la mën a dal waaye loolu moom ci li koy jural ku góor gi ci la bokk kon yoo fukki jafe-jafe ngoog yoo xam ne mën naa indi ay problème ci biir kër jóge ci ki nga xam ne mooy ku góor ki waaye nag it ñu xam ne am na yeneen i problème yoo xam ne jàpp naa ne du yées fukk moom itam yoo xam ne ci jigéen ñi lay jóge kon ñu joxewaat kàddu gi déglu lu mat ñeent wala ñu def ko juróom si ndax problème jigéen ñi moo gën a bari ñu def ko juróom nee na ñu def ko juróom ndax problème jigéen ñi moo gën a bari yooyu góor tey kon ñu déglu lu mat juróomi nit ñu wax nu ci ay jafe-jafe yu am ci biir kër yi yoo xam ne sabab si mooy ku jigéen gi bismillah waaw fii bismillah waaw bismillah salaamaaleykum waaw man de li ma ci constaté mooy dañu doon julli waaye dañu jëlu l'islam euh, mu ko mën à cent pour cent ndax ay opportunité bëgg-bëgg yu bokk na bëgg-bëgg yu pare. oui dañuy mhm. keneen. waaw. joxal keneen soxna yi participer leen waay voilà d'accord salaam ñàkk ñàkka nag a ñu yëlif leen waaw bëgg a nekk soxna ba noppi nekk kilifa ah, waaw ñaataa des ñaar walla kenn kenn moo des ko soxna yi nag ñoo ëpp priorité ci góor ñi moom boo gisee jigéen ju yëkkati loxoom nga jox ko aleykum salaam. en tout cas ñu ngi ci waaw juróom yi mat na bismillah moom daa mel ni dafa dafa génn fi ñu toll a dellu ci gannaaw tuuti ndax dafa dellu ci problème mu góor ñi te noo ngi ci problème mu jigéen ñi eh, ñu ñëw ci yi nga xam ne moom lañ jot a tudd ci biir document bi defe naa ne du ñàkk ne eh, am na ci yu ngeen tudd bi ci jëkk ci loo xam ne dana indi problème di ko indil jigéen ci këram mooy tayeel tayeel moom baaxul problème la ci jigéen ay màndargaam nag day feeñ ci fi mu dëkk di feeñ ci njabootam maanaam nit ki mën naa dugg ci kër rek daal di atte juge ne fii moom jigéen ju tayeel la fi dëkk ndax ni muy gise kër gi ak ni mu gise ay doomam ñaareel ba ñàkk yittewoo boppam moo xam ci wàllu set la seetaayu këram seetaayu boppam euh, loolu ci li indi problème la bokk diggante ku jigéen kii ak boroom këram ñetteel ba mooy manque intelligence maanaam ñàkk muus sun nag ñi dañ daan yar ndaw yarin woo xam ne ay bët sax dañ ciy wax ak ñoom sa kilifa day am na mu def ci bëtam nga xam li mu wax nga dem def ko juñ ji yëngal sa loxo yëngal sa bopp loo def lu ne am na lu muy firi ci moom loolu jigéen aajo woona intelligence bu mel noonu waaye lu bari ci ndaw ñi tey boo junjee dara mu ne loo wax doonte mbooloo maa ngi toog te fekk li ngay wax yow ba bëggoon koo wax nit ñi dégg kon loolu jéem a am euh, pexe yooyu lu am solo la ci kër ak yëgoo akuk déggoo lay indi beneen ba mooy li ñuy tuddee fuqdaan ruuxil mubaadara maanaam am ay initiative yoo xam ne jigéen ji mooy toog ba mu yàgg mu xam ne lii war naa am ci kër gi ay changement wala ay def dara mu defar ko waaye daal moom lim soxla rek mooy fi mu toog mooy saa buñ ne ko defal dara daal mu def li fekk néewuñu ko defal du def dañuy wax ne am na koo xam ne dafa doon dénk doomam muy war a dem di sëyi xam nga ne nit ñi bu ñu yaree seen doom ba mu war a dem ñu tey jii lay war di sëyi nit ñi dañu dajaloo di ko dénk waajuram ne ko boo demee nan ngay def ak sa boroom kër mu ne ko suma demee lu ma digal danaa ko def lum ma tere danaa ko bàyyi bi mu ko waxee loolu mu ne ko yow bu sëb sëy tasee yaa ko tas loolu doyut dangay def loo xam ne wóor na la ne bëgg na ko te digalu la ko nga di ko def loo xam ne wóor na la ne bañ na ko te terewu la ko ci làmmiñam nga di ko bàyyi waaye doo toog di xaar ndigalam ak tereem kon ruuxul mubaadara boobu yi muy am ay initiative yoo xam ne yaay xalaatal sa bopp di def te muy doon lu rafet loolu lu am solo la bokk na ca juróomeel bi mooy riyaabu xusni tabaul loolu nag nañ koy tudde tur yi bari na waaye neexal sa borom kër neexal ko wut bànneexam dox bànneexam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ne ibnu abdul bar wéral na ko ci téere bi ñu wax tamhid mu ne wa jihaadu lmarati xusnu tabaxuli li zawjiha jihaati jigéen nee na bokk na ci dabu bànneexu boroom këram loolu nag dafa laaj ak woyof laaj na woyof bokk na ci al amal xaarij al bayt liggéey ci bitib kër gi léeg-léeg mu andi jafe-jafe léeg-léeg am soxna soo xam ne situation liggéey ba muy liggéey lu ëpp ci waxtoom ci bitti kër gi lay nekk wala mën nay liggéey liggéey boo xam ne sax léeg-léeg moo am urgence boo xam ne day jekki ba guddi ñu jekki-jekki woo ko ne ko ñëwal mu war a jóg dem comme ñuy liggéey ci santé ak lu ko nuru yooyu léeg-léeg mu indi ay jafe-jafe ci biir kër gi bokk na ci yooyu juróom-benneel bi mooy léeg-léeg ku jigéen ki lu jiitu muy sëy dafa yaru ci kër goo xam ne këri paaraam la fa nekk mooy bay bay le gone li ñu tuddee ak dalaal lu soxla rek lu mu laaj rek ñu jox ko lu laaj ñu jox ko day laaj ba laaj loo xam ne moom soxlawut la parce que xam nañ danañ koo laaj mu dem ci néegub sëy nag jàpp ne loolu mooy continuer su continuer wut mu daal di wane loola problème daal di judd kon loolu yi lu ma a bàyyi xel la bokk na ci lii indi problème yi itam ñàkk a ñaar ñi nga xam ne dañoo toll ci labat li ñuy dund suñ jógee ci labat ñi maye leen li ñuy dund suñ jógee ci étape boobu nekk ci biir kër gi sëy li ñuy dund lu gën a bari ku jigéen ki dafay xalaat ne nañ doon def ba ñuy labat téléphone yi guddi bëccëgu goote nangam ci loo nekk nangam biñ koy door a maye yitte ji ak yitte woo gi ba loolu weesu nag ba sëy bi ñëw doom juddu wala ñu bokk nekk jàpp ne loole dafa war a continuer loolu léeg-léeg mu indi jafe jafe parce que it nag lu naturel la ne mënta continuer dëgg la nag minimum war na faa nekk maanaam luy wone ne itte woo na soxnaam soxnaam it itte woon a borom këram ndax loolu mooy tax sëy bi mën a continuer waaye nag jàpp ne na ngeen meloon ba ngeen di labat ak na ngeen meloon ba ngeen nekkee ab séet loolu mooy continuer ba faaw loolu moom munta nekk munta nekk léeg-léeg li indi problème day jëfandikoo xiyaas maanaam comparer li nekk sama kër ak li nekk kër diw sàngam man di kër diw bi ma fa duggee saal bi ma fa fekk ñoom de seen kër lañ fa def ñoom de seen nangam ñoom de seen nangam te yow xooloo yéen seen situation fi mu toll kon kenn ku nekk dafa am lu la yàlla jox am lum la may nga mën koo jël waggar ko defare ko noo xam ne ku fa dugg du la yàpp ak lum tuuti tuuti nag séminaire yi bu continuer am am na fu ma lay wane ci kanam ñoo xam ne li leen yàlla jox ci alal kenn xam lu mu toll waaye boo duggee ci kër ga bagage yi lii ngi tege leen lee tege dara dara organisé gis koo xam ne ab néegam ci bitti boo ko xoolee néegu ñax la waaye boo duggee ci biir fekk fi benn organisation boo xam ne da daal ñii moom ku dugg fi da leen respecté kon mbir mi nekkul rek ci bagage yi bari na ci kër gaak seen nangam ñi nii la mel rek ñoom di juróomi jànq lañ yor yu leen di liggéeyal kii kii leen di raxasal seen i dàll leen di defal seen nangam nekkul foofu waaye fi mu nekk mooy organise mbir mi ba teg ko ci dund gi mën a dal mën a neex kenn ku nekk Eh, di yëg sa moroom kon qiyaas moom jëmul foofu borom bi tabaraka wa taala daf ne wala tamuddanna aynayka ilaa maa matta'naa bihi azwaajan minhum zahrat al xayaati dunya linaftinahum fii wala rizqu rabbika xayrun wa abqaa nee na bul sànni say bët ci ñi nga xam ne dama leen a wërsëgale leneen lu bokkut ak li ma la wërsëgale yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na booy xool na nga xool ki la féete suuf waaye bul xool ki la féete kaw lu am solo la foo toll fu ne am na koo xam ne day day bu sa day wax ne bu ma sañoon damay mel ne diw sàngam damay am lim am yow mi xeeb li nga am am na koo xam ne danaan ak ah, a neexoon ma am lim am kon nag yow xoolal kooka sante ko yàlla waaye boo bëggee di xool ka la féete kaw doo mas a àgg fi nga jëm mukk ndax foo mën a àgg da nga gisaat keneen ku la féete loolu mooy mujj indi fitna euh, fukkeel ba mooy mu dem ba won boroom këram nekku moom day mel ne du ko wax ci làmmiñam waaye day mel ne daal euh, nekkatul nécessité ci moom maanaam boroom këram daal du lu mënta ñàkk loolu nag yu bari mën na koo waral mën naa dem ba njaboot a koy waral mujj yitteem yëpp jëpp ci ay njabootam la ko def boroom këram joxatu ko benn itte mën naa dem ba ab liggéeyam moo koy laaj ci liggéeyam kese kese la nekk boroom këram mooy dernier moment bu borom këram yendu woon ca àll ba wala dara ba ñëw salaamaaleykum sax moom fa mu nekk lay nekk def ni waaleykum salaam continuer du si gis sax xool ba xam kii ñëw ku mu doon loolu borom kër bi day daal yëg ne ah kii kat moom wax dëgg yàlla soxlaatu ma fi mu nekk maanaam doyal na ci ci man loolu day indi ay jafe-jafe ci dundiin wi ci biir kër kon ñi yam ci fukk yooyu am na beneen façon problème buy am boo xam ne man maa leen koy waxal du ma jox kenn jël parole loo xam ne day am te fekk ñoom ñaar ñëpp ñoo ko ci ñoom la jóge maanaam ñoom ñooy sabab bi ñoom ñaar ñëpp bi ci jëkk mooy ñu bari ci jamono yi ñuy labat dañuy sàggane ñaari mbir benn bi mooy listixaara benn bi mooy ci ci listixaara seen sëy bi tànn loo leen seen borom ba xam moo gënam ndéet loolu ñu bari dañ koy sàggane ku góor ki ak ku jigéen diisoo ak ka xam ki ngay bëgg a jëf jëflenteel loolu célibataires yi ñoo ko moom diisoo nag dafa am xaq maanaam ki ñëw laaj la ci nit te nga xam ko sharia teg na la paxta nga wax ko li nga xam ci moom su boobaa tuddatul jëw xam nga ci moom lu baax wax ko lu baax le xam nga ci moom lu dul noonu nekku ko kii nangam ak nangam ak ci moom te doon nag loo xam ne lu dëggu lay doon bul mel ne ku góor ko waa ji ñëwoon di ko laaj si ndeke moom doom yi dëkkandoo ji xelam a ngi ci moom mu bëgg koo takk keneen ñëw di ko ci laaj loo xam ci ñoom ci moom ndax sama xel daa nekk ci moom te yow xam naa ne xam nga leen seen dëkkandoo la loo xam ci moom mu ne ko ah, ku baax la di jikko yu rafet na waaye xam naa daal bët yi daal am na lu ci nekk daa am lu weex daa am lu weex lu ne ci bët yi dafa am bët yi dafa am lu weex loolu koo ko wax day jàpp ne ayib la ñu toog lu matul weer ñu yëg ne waa ji takk na xale bu jigéen ba moom miñ doon laaj waa ji dajeeg moom ne ko waaw yow li ma la doon laaj ak li nga ma tontu moom ak li nga def àndul de mu ne ko ah, man kat li ma xam laa la wax xam nga ne bëtum nit moom faaw mu am lu weex yow kay yaa ko déggee noonu waaye man lima la wax lu am la voilà mu ngoog léegi léeg am na problème boo xam ne ñoom ñaar ñëpp ko ñoo ci bokk yam mooy sikki sàkk ci sa moroom maanaam amatoo confiance ci moom am na nag ay sabab yu bari yu koy indi léeg-léeg sabab yu existé lay lu am la léeg-léeg mu doon sabab yoo xam ne ay njort rek la yu ne ci bopp yi waaye lu ci nekk day indi jafe-jafe moo tax nag kenn ku ci nekk war nga wattandiku ba euh, siqa muy confiance bi dox sa digganteek sa moroom mu bañ a dañ ndax dañuy wax ne loolu mooy loo xam ne bu dañee kenn mënu koo defaraat maanaam moo ko weer bu toj ñooyam mënee su koo ŋànk mënee su koo kole mënee su yàqu na jeex na kii daal wóolootul kii jeex na mënee satu ci dara mën nay maslaa nag continuer di muñ nekk fa waaye kóolute gi moom du dellu siwaat moo tax loolu moom des koy garde ñetteel ba mooy ñàkk a déggoo ñàkk déggoo kii daal natiiram moom wax dëgg déggoowul ak kii léeg-léeg kii mën nay kaf sax kee jàpp ne ci dëggam la nekk daal di mer ci loolu loolu ñàkk a dégg moo koy waxal loolu nag lu bari moo ko war a mën a waral léeg-léeg mën nañoo doon ñoo xam ne bokkuñu ay environnement yu ñu kii dëkk bam dëkk lii seen aada lii mooy seen cosaan nii la ñuy defee keneen kii dëkk ba ca des bañ dëkk nii la mel nii la mel nii la mel loolu jaadu na ji ma góorgóorlu jël lislaam ji leen boole xool yi leen jàngal nga xam ñëpp a ko bokk ñu fexe ba di ko dund ci seen biir kër su ko defee loolu mooy indi bennoo gi gën a mën a gën mën a sotti waaye bu kenn ku ne jàppee ci say aada say cosaan moom ngeen mën a déggoo su kee café sax kii jàpp ne da koy xas léeg-léeg euh, ak sore luñ doon dund dana indi ay jafe-jafe kii mi ngi juddu moo xam ku góor ki walla ku jigéen gi mi ngi juddu yaru ci foo xam ne néeg bu ñàkk lañ amuñu alal kee judd foo xam ne ñu bari alal lañ ñu bokk daje ñoom ñaar kenn ku ci nekk am na looy dund loo xam ne du bokk ak ka ca des la muy dund pour ngeen déggoo dana laaj dox ab diir bu yàgg a yàgg léeg-léeg juyoo ci diine maanaam kii diine ji yor kee yor jeneen diine xam ngeen ni jullit bi dagan na mu takk ku bokkalul diine su fekkee ci diine yahut la nekk wala nasaraan loolu léeg-léeg ñu def ko waaye léeg-léeg mu indi problème léeg-léeg soo ko waxuma la diine waaye manhaj bi ngay dund rek ci wàllu sunna ak lu dul sunna léeg-léeg mu dem ba indi ay jafe yu jafe yu métte métti yu bari ci diggante ñaari way dencante fekk bokkuñu lu ñu gëm ñoom ñaar kii dafa nekk ci noo xam ne na la déggee di ko dunde kii am noo xam ne noonu la dégg diine di ko ko dunde donte diine jëpp diine lislaam la juróom-benneel bi wax ngeen ko mooy ak fiir gu ëpp fiiraange mënta ñàkk moo xam ko góor ki la wala ku jigéen ki la waaye nag mu yem ci ay frontière am maanaam bañ a bañ a ëpp bay àgg ci daganal lu yàlla xaraamal wala muy xaraamal lu yàlla daganal juróom-ñaareel bi mooy kër gu amul organisation nga xam ne amut lenn loo xam ne luñ dëppoo la waxtaane ko ba juboo ci ne lii nii lañ koy doxale bokk di ko defe noonu léeg-léeg problème day posé wu ci ay ay ñi nga xam ne dañoo yor lu ëpp ay soxna ñoom dañoo war a waxtaan ba dëppoo ci ne nii lañ koy defee nu mu a doon rek sariya fekk na leen ci nuñ ko mën a waxtaanee ba d'accord ca noona a fekk na leen ca noona kon waxtaan mënut a ñàkk ci bunt yu mel noonu léeg-léeg ñàkk a xam say responsabilité dana indi problème muy ku góor ki muy ku jigéen ci bokk na ci it ñàkk a tàggatu dugg ci ab sëy te tàggatuñ la ba nga xam ne ñuy sëy bu yàggoon nga xam ne objectifu sëy moom mag ñi kenn ku nekk xam ne nañ daan sëye xale bi day juddu ñu jël ko jox ko bàjjanam wala kennam mu yor ko di ko yar muy xool di gis na muy sëye moom bu jógee boo léegi mu roy ko dem ci loolu waaye léegi jamono ji gën naa compliqué loolu bàjjan bi nga xam ne da doon dund fanweeri at ci gannaaw léegi mi ngi toll ci soixante ans soixante dix ans nga jël ab xale jox ko mentalité bi mu yor bokkut ak fi jamono toll tey kon tey li fi mën a sotti rek mooy tàggat maanaam dugg ay séminaire comme ni ñuy jànge yeneen yi ci des di ko xarañe noonu la ñu war a jànge nekk ci biir ab sëy muy ku góor ki muy ku jigéen ki saa boo xamee ne loolu manqué na bu sëy bi commencé dana feeñ ab xam-xam la boo xam ne dañ ko war a jàng ak fànn la koo xam ne dañ koy jàngale sax ba àgg ci di ci joxe ay diplôme ci suñu jamono ji nu nekk ci yenn réew yi nga xam ne xam nañ sëy mooy lan nga xam ne ki ngay ñëw di labat si da nga naan ko ana sa diplôme mu ne la yow itam ana sa diplôme bu wanee ne tàggat nañ la ngeen génne ko ba mu wóor na yéen ñaar ñëpp tàggat nañ leen ci kër ngeen door a waxtaan ba yëg ne kenn ku ne li ne ci sa diplôme morom dégg na ko ngeen door a seqi beneenub jéego bokk na ci it léeg-léeg feebar buy wàlle ku nekk la mën a dal ci ku góor ki ak ku jigéen ki te léeg-léeg ñuy labat ba noppi nëbbante ko kii mën na koo nëbbu kee wala kee nëbbu ko ko ca des ñu dem ba ca biir gis loolu problème daal di judd bokk na ci it te mooy bi ci mujj mooy ñaari way dencante yi kenn ku nekk am na loo soxla ci sa moroom di ko séentu ci moom soo ko ci fekkul loolu mën naa jul problème mu des nag ay problème yoo xam ne ñeneen a koy indi problème yi ñeneen ñi indi léeg-léeg ay ay bokk lay doon rawatina bokki jëkkër ji su fekkee ne ndaw si dafa xëy sëy si ci biir kër goo xam ne ay bokki jëkkëram la fa fekk rawatina yaayam ay jigéenam yoo xam ne benn dañoo séyeegul wala dañoo séyi ba ñibbisi ñu mel noonu muy séy ñoom ci biir kër daanaka am natt bu mag a mag la boo xam ne bu metti faw moom laaj na lu bëree bëri ci muñ waaye nag ñooñu moom bari na problème yu am ci kër yi te fekk ñoom ñoo ko fa indi bokk na ci it ay dëkkandoo rawatina li wolof yi di tudde màggatum yoor yoor màggatum yoor yoor day nekk màggat moo xam ne kër ga mu nekk daanaka ñëpp dañuy xëy liggéey mu des fa moom dong bu xëyee ci suba gi wala ci yoor yoor bi day bëgg a doxantu dem kër diw ndax mu am ku mu wertilikul ku mu waxtaanal bu dikkee lu gën a bari day dugg ci yoo xam ne yu xóot la ci ay domaine yow moom niñ la jàppe ndax seetlu nga ko bu baax diw de gis naa ne moom nangam ak nangam di wax ci sa wujj wala mu wax ci sa wujju peccer ko wala keneen koo xam ne ci dëkkandooye la ah diw de seen kër moom bëkk dem bi ma fa demee fekk naa fa nangam ak nangam waaye yow di seen kër daa mel ne moo ne su borom kër di defe naa ne am na ko ndax di diw sàngam de kii bi mu yor moo ko ko jox yu mel noonu lay def jaxase la ba su borom kër day xëy liggéey wàcc ñëw fekk fi beneen xar kanam bu bokkul ak bi mu fi bàyyi woon bi muy xëy fekk lu ko ko teg mooy màggatum yor yor ñetteel ba ci problème yi nga xam ne ci bitti lay jóge ba tey mo ci parents yi rek lay jóge mooy ak can gu seer can gu cher dafay indi eh, ak lambu cib sëy parce que eh, mbir mi nekkul jaayante ak jënd ak waxaale fay ak yu mel noonu waaye ab sëy la tudd boo xam ne can lañ sant ku góor ki mu joxe ko su duggee nag ci yeneeni problème dugg ci yoo xam ne nit ki dafa yor doomam ji jigéen jàpp ne ab projet la boo xam ne daf cee investir alal bëgg alal jooju dellusiwaat balaa dem loolu mën naa indi jafe-jafe yoo xam ne xale bu jigéen boobu mën na faa nekk ba faw ba wutul du kër te fekk jafe-jafe yi ay parents ñoo ko andi ay xarit moo xam xarit yi ku góor ki la wala xarit ku jigéen ji léeg mu andi ay problème yu mag sax jigéen ji ci boppam warta am ay xarit yu góor ku góor ki warta am ay xarit yu jigéen ci ñaari way dañ loolu moom dañ cee war a pare bu leer waaye mu des nag xariti ku jigéen ki doon ay jigéen buñ dikkee luñ koy wax ak xariti ku góor ki doon ay góor buñ dikkee luñ koy wax moom itam ñu ci bari seeni bopp dana yàqu ba dañ doon jëflanteeg seen partenaire soppiku fekk li ko indi mooy sey xarit yi bopp yi nga xam ne sax léeg-léeg da leen a fonk lool ñoo ñëw di la indil yu mel noonu xam nañ ci ay cas yu doy waar yoo xam ne waxtu wi mayul di ko euh, détaillé waaye xarit bu góor boo xam ne moo ñëw yàqal ab xaritu benn ba këram soxnaam ba tàggook moom mu dem takk ko loolu yi Euh, am na ci biir société bi am na yoo xam ne dafay saafara problème yooyu mooy wóoloonte wóoloonte sëy bu mu am jàppal ne am nañ benn baas bu dëgër boo xam ne lu jafee yëngal lay doon ki nga xas dem ba wóolu ko mu wóor ne kii sa boroom kër la boo xam ne xam nga ko ak luñ ma mën a wax ci moom ci àdduna bu dee ay wax la mënuma koo gëm xanaa ma dem ba teg sama bët rek moom it noonu ci yow kooku ab jaambur du am bunt seen diggante su waxee ba daaneel nga ne ko déedéet loolu du jikkoom te loolu dafa dafa bokk ci dund dunduk jullit maanaam ñu wax la ci jullit loo xam ne la nga xam ci moom bokkut ak loolu nga ne déedéet loolu dafa jaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma la nit waaye benn bis gëleemam muy alqaswa noonu la gëleem gi tuddoon yonente bi alayhi salatu wasalaam da ko war muy dox ba mu yàgg tànk bi fel aw doj mu sukk daal di jogaat saxaaba yi ñu ne xalaatil qaswaa ñu ne alxaswa de dafay toll nag ci di bëgg a lànk léegi day bañ maanaam defe ne defe ne bañ moo waral mu def lim def yonent bi sallallahu alayhi wa ne leen ma daaka laha bi xuluq mu ne leen loolu du jikoom loolu du jikkoom maanaam du bañkat lii kay lu ko fël la waaye du bañkat kon nit ki mën nay see kenn ki ba mu yàgg sax mën naa def dara sax nag loo xam ne du noona waaye day xam ne lii njuumte waaye du jikkoom su ko defee lu mel noonu mu suul ko mel ne lu musta am départ boobu su amee seen diggante ñi bokk di ko dundal confiance boobu di yokku lu bare bari ci jafe yi jafe yi am tey danañ ci mën a mucc bokk na ci yooyu mooy attafaani fi xidmati tarafi l axar loo man ci effort nga di ko def ci servir keneen ki ci des maanaam li nga ko mën a jox nga di ko ko jox di ko ko def sa kem kàttan ba du jàmbat dara moo xam ko góor ki la moo xam ko jigéen ki la loolu ci liy dundal sëy bi di faagaagal problème yi ci la bokk bokk na ci it nag luñ mënta bàyyi booy di tàggatu di tàggatu nag ci yor kër yor kër des di tàggatu moo xam jigéen ak ni kër la wala góor ak ni bokk na ci mooy yëg-yëg bu nekk benn bokk lu ngeen di yëg rawatina su ngeen di dund problème yu metti mën ngeen a dem ba jëmmi jamono wére di ñëw am ko wére di ki ci des yëg ko yëgiin woo xam ne ca lay xamee ne kii kat ndekete ku mat a àndal la léeg-léeg problème ñëw boo xam ne ci seen kaw la dal yéen ñaar ñëpp mën naa nekk ak ñàkk sax kër gi ba boo xëyee bu ndekkee doo añ waaye du tax dara yëngu du tax kenn ŋàññi kenn day fekk ku jigéen ki xam na ne kii day benn franc bi sax bu xëyoon am ko moom dana ko indi ci kër gi waaye amul feneen fu mu koy yóbbu su ko defee xelam day daal ci loolu bokk na ci it nag maanaam di yeesal yeesal ñu tudde ak tajdid al mustamir wal bu'du ani routine dafa bokk ci yi yi tax kër nekkiin wi eh, continuer ci nam tàmbalee woon ndax doomu aadama ci boppam dafa bindoo noo xam ne li muy dund di ko gis bis bu set bis bu set bis bu set bu sañoon day xëy gis leneen loo xam ne bokkut ak loolu waaye day fekk loolu mu koy gis moo gën li nga xam ne nekku fi woon démb ak bëkk démb su ko defee yeesal googu yi nga xam ne dafa continuer ci ku góor ki ak ku jigéen nga xam léeg-léeg nga génn rek dugg ci kër gi ñëw am mbett fekk ñu teg fi loo xam ne nekku fi woon léeg-léeg lu simple lay sax waaye da ngay kii mi ngi dox di beesal kër gi sa xel lay daal di gën a sedd ci loolu moo xam ku góor ki moo ko fay indi wala ku jigéen ki moo ko fay indi bokk na ci it teg benn plan boo xam ne yéen a koy bokk teg góor ki ak ku jigéen ki ñooy waxtaan ba ne kër gi dañoo bëgg muy doxee nii di ko defe nii di ko defee nii teg benn plan boo xam ne moo xam lu jëm ci yar xale yi la moo xam lu jëm ci waxtaanu diine wu ñuy def wala waxtaanu diine wu ñuy bokk sax di ko déglu loola ñi bokk di ko déglu di bokk di ca waxtaane léeg-léeg ñu téye téléphone bi teg fële waxtaan ci thème tomb boobu ba mu yàgg ñu taalaat bokkaat dégluwaat continuer programme boo xam ne dañuy bokk di ko defandoo ñoom ñaar loolu dafa bokk ci yi nga xam ne yu mënta ñàkk bokk na ci it diisoo nag diisoo ci lépp ba ci yu sew sewaan yi nga xam ne dañ koy doxal ci kër gi ku dem ba bëgga def dara keneen ka ca des nga ne ko nangam de dama ko bëggoon a def yëgal ko ko mu xam ne ah waaw tabaarakalla kii de moom bu dee ku jigéen ki mu xam ne kii am na initiative yu muy indi ci kër gi parce que bis bu ne mu jox ma xalaat ne ma nangam laa bëgg a def wala damaa bëggoon nu def nangam ñu d'accord ci loolu daal di koy def loolu lu am solo la bala ngaa def dara lu nekk diisoo ci bokk na ci bañ a may keneen muy ñëw di dugg ci diggante bi nag loolu moom fatt fenêtre yeeg bunt yeeg yëpp ba kenn du am loo wax su bëggee dugg si nga sakk boobu bunt bokk na ci it nag mahaara boo xam ne dafay delsi ci ñaari way dencante yi ci su fekkee ay xeeti wujje dafa am maanaam borom kër bi dafa yor lu ëpp ay soxna ak maandu teem ak rafet jortu soxna si ci boppam bari na lu muy lu muy saafara ci ay problème maandu tegi du weesu xam na ne moom ñaari way dencante ay soxnaam du ñàkk yu sew sewaan yuy am seen diggante mu bañ a ubbi nag bunt boobu bañ koo xóotal maanaam doo nangu toog ak kenn ki muy wax ca ka des su dul noona loolu doo ko nangu loolu nag nañ koy faje du ñàkk mukk danga nga mas a toog nit mu wax ci ka des wala mu junj ko loo xam ne lu dul noonu la waaye su ko waxee rek yow nga wax ca moom lu rafet ni ko nangam ak nangam ak nanga mooy jikkoom tam doon loo xam ne loo xam ci moom la su wóoree ne saa bu waxee ci moom lu dul noonu aw tagg lay dégg bu jógee ci saw làmmiñ léegi duutoo dégg mu wax ci moom dara ndax tagg woowu daf koy déranger ci lu bari nag ci jigéen ñee tax may wax waaye du ñëpp am na ci ñoo xam ne moom euh, kuj bi ci seen bitti loxo lañ ko teg maanaam du du lu am solo du lu rëy jaralu leen saalit waaye du caagi ni jaralu leen saalit ci kaw dañ koo jàppe rek benn réalité boo xam ne mënuñu ci dara waaye dafa doon loo xam ne dañoo gëm ne lii sax dafa war a am te dafa am njariñ waaw am nañu àgg foofu wax naa ne am nañu àgg ci dem takkali seen borom kër hmm? am na waxtaan wuñ doon def fan yii rek am ku jóg seedeel seedeel soxnaam ku góor ki moo jóg taxaw seedeel bopp moroomam dafa daa ne waxtaan yu ma tegul weer du ñàkk ku ko fekkee ci yéen seedeel soxnaam ne soxnaam bu yàgg ba léegi mi ngi koy wutal soxna jëmmi soxnaam ci boppam mooy dox di ko wutal kon nag loolu ab niveau la boo xam ne waxuñu ne jigéen ñëpp dañ faa àgg waaye pour ñu bañ a généraliser wane jigéen ñëpp nii lañ mel waaye ñoo xam ne ba léegi am na ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci melokaan yu baax yu yu jëkkee su dee dañoo ñëw nag ci solution yi xam naa ne duñ ci mën a sori ndax waxtu wiñ ñu joxoon moom daanaka jeex na defe naa li gën sax mooy ñu taxaw foofu su amee ay question ñu dugg ci eh, waxtaan wi moo bindoo noonu te li ci des fi ne ci jotaay bi fukki minute la ndax eh, ci ñeenti waxtu lañu ñu war a arrêté léegi ñoo ngi ci trois heures cinquante kon fukki minute yi ci des ñu bàyyi ko ak yéen yeneen yi ci des su ngeen demee ba amaat beneen occasion rek ñu mën a def ab séminaire incha allah boo xam ne danañ mën a jàngat lépp ci ay atelier ak doxale ko noo xam ne bu àggee rek ñëpp danañ ànd jëriñu ci wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bul dem ci fa bul dem ci caaxaante naga sori fu ñu koy defee bul dem ci fa bul dem ci caaxaante naga sori fu ñu koy defee bul dem ci fa bul dem ci caaxaan te naga sori fu ñu koy defee. bul dem ci bari fu ñu sa diine mooy sa ndam te loo ci xam nang ko jëfee bu leen ci fo bul dem ci jaaxaan te nga sori fu ñu koy defee